Euh, asalaamaaleykum euh, chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci Senego TV te aussi ñu ngi am mbégte di dawal dalal euh, suñu gan Ousmane Noël Dieng nekk responsable APR ak Kaolack donc aussi nekk chef de cabinet Dieng Farba Sarr donc au niveau de la DGPU monsieur Dieng ñu ngi leen nuyu di la dalal ci Senego. ñu ngi lay fay sëñ Khalil di nuyu waa Senego yëpp di nuyu spectateurs yi ñuy seetaan yëpp wax dëgg yàlla gannaaw bu ñu waxee bu ñu yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu suma mentor monsieur le ministre Diène Farba Sarr du nuyu aussi son excellence monsieur le président de la République Macky Sall waaye di nuyu Sénégal yëpp les xalif généraux di nuyu wax dëgg yàlla parti au pouvoir ak opposant na Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñoo ko bokk. Mhm. donc euh, avant ñuy dugg dans le vif du sujet euh, peut-être on va commencer par l'actualité donc actualité bi jamono ji mu ngi marqué euh, mu ngi koy marqué mooy arrestation wu Pape Alé yow aussi diggante bi nga li xew wala arrêté boobu ba léegi ñu ngi gis association de presse aussi ñu ngi génn di kaas donc est-ce que bon ñu bëri ñu ngi kaas que ni liberté de presse liberté d'expression surtout euh, les journalistes sont menacés actuellement donc euh, yow en tant que compagnon euh, en tant qu'apériste aussi donc naka nga jàngatee situation boobu. bon d'abord tout d'abord damay wax rek ne Pape Alé d'abord fu mu nekk muy xat-xat ci moom man de yéenoo moo ko man Ousmane Nawel. te maa ngi koy ñaanal yàlla yan na ko yàlla oyofal ndaxte Pape Alé papay jàmbur la jëkkëru jàmbur la doomu jàmbur la et donc fu mu nekk xat-xat la yan nañu yàlla mosal ci kaso ci darje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam et donc yan na ko yàlla teggil wax nga ne ne euh, presse bi yëpp jóg nañ ñi ngi xiiru ñi di ñaayu ñi di jóg nañ bàyyi Pape Alé mën naa sax ñu ngi koy def nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi Euh, liir naa lépp bien vrai que bañ koy jàpp sa fekk ma fi mu ma fekkoon bitim réew waaye gis naa lépp dégg naa lépp. Hmm. ma ne Pape Alé lu mu fa mu kenn yéenewu ko waaye je la je dis une chose euh, presse bi est-ce que yëgoon na aussi ba Pape Alé ci benn fauteuil rek fauteuilam rek jàpp tamit beneen papay jàmbur beneen jëkkëru jàmbur beneen beneen beneen doomu jàmbur wax loo xam ne ay wax yu yu doy waar ba tuumaal. ba wax la loo xam ne kër ga keroog peut-être kenn nelawul doom yi duñ nelaw sa jabar du nelaw Pape Alé nekk à l'aise toog ci fauteuil am wax lu ñaaw euh, ay doomu jàmbur est-ce que nañ loolu franchement est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que wax lu ñaaw am na solo tuumaal nit comme ku si mel ni général Fall mën naa la ko mën nañu ko fàttali. non ñu ngi wax sax que ni général Fall moom mi waxul turam si bi muy def live. waaw mais même bu xam nga am yoo xam ne am nga des fois nit di wax. mbir mboo xam ne xam nga nit ñi dofuñu fin franchement Sénégal fii ñëppay teel a tëdd waaye kenn nelawut yaa ngi dégg fii kenn dofu fii tey ji booy wax nit man nga bëgg wax Ousmane Nawel ne benn chef de cabinet bu nekk DGPU bu dëkk OND ñëpp xam nañ Ousmane Nawel Dieng ngay waxal nañu waxan dëgg rek yaa ngi dégg kon soo fekkee diw kooku genre général Fall papa jàmbur la ja jëkkëru jàmbur la waaye doomu jàmbur la boo waxee tuumal ba pare am ay ñoo xam ne moo leen jiit ci armée bi njiite leen soo waxee ne mi nga ay immeuble ay nangam ay nangam nangam ba pare te loolu yëpp du amul yaa ngi dégg waaye waay waay ay waay waay ay doomam wala wala wala ay ñëm jiite ci armée nan lan lañ koy xoolee. bu ñu fàttali que ni journaliste d'investigation la aussi peut-être. est-ce xam naa ni peut-être am na ay documents yi nga xam ne yor na ko. waaw mais non non gars yi des fois duñ yor dara. Euh, mon frère duñ yor dara dañuy wax rek ne pour rek euh, maanaam nguur gi neexuma peut-être Macky Sall neexuma képp ku xaw a ne gis na takk nañ ci Macky Sall rek xaama wax lu ñaaw xaarama wax lu bon waaw donc euh, loolu lu lu bon la woon lu ñaaw la woon pourtant pourtant presse bi mënoon na jóg aussi na ko Pape Alé nag arrêté parce que franchement journalisme lu noble la journaliste journaliste journaliste yi mënuñ dem sans ñun ñun mënuñ dem sans ñoom man man j'aime bien ce métier parce que ñoom ñooy tasaare xibaar ah ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñoo ñu yëgal lu ñu yëguloon et donc ba pare dañ ci sonn man tey ji su ma nekkoon dara ci réew ci nguur gi amoon pouvoir ci nguur gi journalisme la journaliste laay gën a fay moom lay gën a fay parce que tey ji wax ji may wax man tey Ousmane Noël bu ma ràññee journaliste yee tax donc man je n'ai rien contre les journalistes mais seen métier bi dafa am ñu ko rax di ko yàq tey ji ku jog yor na site ku jóg yor na micro ku jóg yor na benn caméra ñu ne ñu lay ooy journaliste alors que journalisme journalisme métier bu noble la xoolal les grands journalistes yi fi nekkoon yi nga xam ne musuñ wax lu ñaaw musuñ def loo xam ne franchement pour détruire nit ah journalisme du pour détruire nit journalisme du gis ni ne xaaral ba yënga ki xam nga jëm ko détruire xam nga jëm ko yàq ba nga yàq xalaatal na am nga doom am nga jabar am nga lépp est-ce la waxoon la dina la neex ba tax ne presse bi tamit ñu jógee noonu yëpp dina nañ bàyyi Pape Alé Niang nañ ko def nañ ko def nañ bàyyi justice def yoram liggéeyam du dëgg et donc euh, ñu ñu tamit bu Pape Alé Niang toogee toogaatee aussi di wax ci yoo xam ne ci papa jam yaay jam ñoom tam ñu jugaat ñu jugaatee nii comme ni ñu jugee woon. parce que soo soo seetloo euh, mu mu sortie bi mu mujjee def par rapport ak euh, rapport boobu interne boobu au niveau de la gendarmerie que aussi loolu jar na ñu jàpp ko aussi parce que par rapport ak li mu jot a génne mais xam nga lu xam nga lu a génn. xam nga xam na Sénégalais mm-hmm. mon frère adduna lépp loo gis am na lu war a génn ak lu war a génn Pape Alé Niang buy génn këram day solo ba jekk solo nëbb ay cëram yu warta génn ba dafa xam ne ay cëram warta génn te te doomu aadama la mais kanamam du ko muur loxoom du ko muur ay dàllam ndax dëgg yàlla day feeñ yére yi day feeñ mais lu ci biir du feeñ parce que warta génn état tamit noonu la mel état dafa am lu war a génn ak lu warta génn sëkk la ñuy waxee secret d'état les secret d'état mais du lépp lu ñu war a wasaare du lépp loo xam ne mën na tas réew mi mën na mën na mën na franchement tey xalil tey réew bu dàqoon tey xalil doo ci mucc tey seen fu ñu nekk fu ñu toog nii def émission am jàmm gu ñu am ba di def émission kon duñ ci mucc président Macky Sall sax du ci mucc ah kon mi ngi làqatu ci ginnaaw tekk der yi ñu ñu pour pour indi stabilité ci réew mi même opposition opposition bi tey nii di wax duñ ci mucc bu réew mi tàkkee. e donc lépp loo xam ne warul génn dañ ko classé ne lii wartu génn wax dëgg yàlla nit warul yee fitna ba di ko génnee Pape Alé Niang nag maa ngi koy ñaanal yàlla ci daraja Seydina Mohamed yal na yàlla génn ko ci lam nekk ndax xat-xat la yéenu ma ko de su ma mm-hmm. soo seetloo sax parce que dossier boobu noonu aussi dafa xaw a laal si affaire Sonko Adji Sarr aussi donc euh, rapport boobu aussi parce que moo tax ñu bëri bi ñuy génn ñu naan donc c'est d'intérêt public affaire bi euh, nekk au niveau international sax mën nañu wax parce que mu affaire Sonko Adji Sarr bi donc de ce fait suñu gisee leneen li nga xam ne war na mën a leeral nit ñi donc pourquoi pas mu ñu ko ñu koy nëbb. waaw mais mais non xam nga dossier Ousmane Sonko Adji Sarr kenn mënu ci xam dara ko dul yàlla kenn mënu ci xam dara ko dul ñaar ñu ko séq xam nga ñii dañuy wax rek dañuy wax man wax man mu du ma teg sama loxo ne Ousmane Sonko Adji Sarr nangam du ci wax xam nga tool ma ci wax. Mm-hmm. fekkeewu ma bay Ousmane Sonko di fa dem fekkeewu ma lu mu séq ak Adji amul mbindeef bu ko fekkee lu dul ñoom ñaar entre les quatre murs kon ku ci wax loo xam ne rek yaa ngi wax loo xam ne Adji Sarr mu mën a wax justice Adji Sarr mooy victime bi nga xam ne moom franchement nee na Ousmane mooy Ousmane Sonko mhm. ne na def na ko nangam moom du ma mhm. jaar sax si moom du ma wax lu ñaaw mhm. du ma wax lu bon Adji Sarr jigéen la sénégalaise la comme ñëpp dem na porter plainte Ousmane Sonko Ousmane Sonko xamal nañu c'est archi faux dafa demoon di massé wu feebar na dem di massé wu yaa ngi dégg massage ba ba muy dem wax dëgg yàlla Macky Sall yëgu ko ba muy dem ku bokk ci Macky Sall yëgu ko moom moo demal boppam parce que dafa feebar dem di massé wu ba muy dem ba la lam séq aji Sarr ak lam séqlu aji Sarr min def xamu ko su ma sañoon Sénégal yi dañ ciy maandu bàyyi justice bi justice bi liggéey liggéeyam. ba xam fu est-ce que aussi li ñu politiser affaire yi moo tax affaire bi am jël ampleur bi. mais man dama dama xamul sax lu tax ñu koy man man je comprends pas aussi la justice pour lan. mënul mhm. tëb tëb rek yaa ngi dégg. àtte àtte bi mu le mbir mi leer benn yoon ku ñu fàtte affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Mhm. réew mi dafa soxla leneen. parce dafa yàgg depuis nit ñi dañoo nit ñi sonn nañu. Mhm. yaa ngi dégg borom kër yi sonn nañu xale jeunesse bi fi ñu doon nii jeunesse bi yëpp installé nañ ay rancune seen xol yi nit ñi ngeen ñu ngi saaga ñi ñu ngi nang lu ko indi mooy affaire Adji Sarr Ousmane Sonko nit ñi léegi am talatuñ dara boo bokkee sax da ngay am sa xarit sax xarit ak xarita sax léegi amatuñ léegi werante nañ ci Adji Sarr si Ousmane Sonko ci Macky Sall ba fintoon xarit amatul dañuy xeex di saagante ndey di jamante lu la ñuy def et donc justice bi na régler li muy régler une bonne fois pour tout mu jeex ñu xool fu dëgg féetee may waaye may wax ne mm-hmm. may wax ne ñoom ñaar mm-hmm. bu dee Ousmane Sonko bu dee Ousmane Sonko moom leer na ne moom jàng ku jàng alxuraan xam ne lu yàlla wax bu dee def na moom xam na bu dee defut xam na digganteem ak saa borom la waaye na ko leer ne moo dafa dafa dafa dafa dafa sàkku laaj réew mi su fekkee lu mu def la tey ko lu def la tey ko ba pare kat bàyyi nit ñi si biir ba ay 14 morts di ci am réew mi di jaaxale di sonn nit ñi di nekk ci réseaux sociaux yi di saag ak nangam bu dee lu def tey la moo ak suñu borom la aji saar su fekkee lañ koy tuumal dëgg la. dañ ko complot mu fexe ba def lii moo ko tey xam na ne bu baax ne Ousmane ko defu ko dara. Ousmane ko def ko dara li mu def peut-être ñoo ko defandoor wala defandoor ko sax wala Ousmane ko sax laalu ko mu tey ko indi coow lii billaahi du ko jik moom Adji Sarr donc lu ñu ñaan rek mooy justice def liggéeyam. ñu bañ ko politiser bañ bañ nekk di ci wax dara euh, Ousmane Sonko du Macky moo ko teg lii du keneen ak keneen Macky Sall amul jot talu euh, am na dara lu ci lëmbat ndax xamal na yàlla nga koy xool yàlla nga koy tiim kon donc man du ci wax ci Ousmane Sonko dara du wax ci Ousmane Sarr dara si si Adji mais xam naa aussi par rapport ak Sonko nañ si ñëwaat un peu ci kanam am na euh, yi ñuy jot a for ci wéyu béy comme on dit ah donc mais pour le Maman aussi bëggoon nañu aussi nga joxe sa xalaat par rapport ak baisse prix parce que sénégalais yu bëri ñu ngi xaw a xeeb par rapport ak li ñu ci wàññi xëy na sax mesure ñu koy jël fekku la fi donc mais nga ko. Euh, euh, si mën a. mais xam nga Sénégal yi bëgg gis nga nit dama bëgg nit bu defee dara nga waaw góor waaw góor fajul dara waaye yokk na yokku na ngóora gis nga buñ ko xeebal ñi nga xam ne xam nga des fois gars yi kaas jënduñ ceeb jënduñ dara de. Mhm. gars yi des fois jaayu kaas nii. Mhm. jënduñ diwliñ jënduñ ceeb ñu xamuñ sa lu muy jar. Mhm. xam nga nit bul xeebal nit 300 francs bi muy dajale. Mhm. di ko wàññi si 5000 francs di ko dajale par ndànk-ndànk 300 wala 400 wala 200 bi muy dajale bul ko ko xeebal. bul xeebal borom location bi waroon fay 600000 fay 550000 50000 francs yooyu bu ko ko xeebal. ku bul feebal ko waroon fay 150000 fay 130000 30000 francs yi muy denc per weer bu ko xeebal am mën na mën na jënd rafetay ma. te pourtant ba muy fay 150 mille francs jëndu ravitaillement kon 30 mille francs bi kon am na lu mu ko yokkal wax mi ngi mi ngi koy jëndee ravitaillement et donc bu ko xeebal léegi nag réew dafa am lu muy doxee comme de président góor góorgóorlu na tey ñafe déglu askan xam nga man mii maa njëkk taxaw te pourtant maa ngi ci nguur gi ànd ak président Macky Sall ànd régime bi maa njëkk a taxaw nag président les gens sont fatigués mm-hmm. président tali yi rafet na infrastructure macha allah waaye ñii dañoo sonn diwlin cher na ceeb cher na lépp cher na ma nekk ci nguur di ko wax kon ça veut dire man askan bi man lu ñor askan bi laa yaakaar. mais nag comme te def na jéego. nañ ñaan yàlla mu gën def jéego ne ko président wàññi nga lii waaye nag ñaan nañ yàlla fii ak mois wala fii sax 1 an mu gën a wàññeeku. dañu bugg Sénégal yi gis seen bopp seen bopp di ma fa macha allah di jënd saako ceeb bu baax di desal weccit. di jënd diwlin di desal weccit. di taal courant di taal climatiseur yi gars yi di taal seen kër yi ñëpp war koo taal di féexlu ventilo di ko taal di nelaw parce que doo xalaat courant bi cher na. doo xalaat ne diwlin bi kat di lekk ci ceebu jën bu niin bu baax comme ni ko gars yi di lekkee ñoom ñu koy lekkee noonu parce que franchement il le mérite les sénégalais méritent ça. et donc ñu ngi ñaan président Macky Sall wàññi na waaye na gën a góor góorlu na gën a góor góorgóorlu gën a wàññi maanaam bu ko jaralee sax bàyyi yenn yi jar na ko bu ko jaralee bàyyi yenn yi wàññi yenn salaire yi wàññi yenn affaire defar ko si askan bi askan wi jar na ko. mais ñu sax si loolu mesures yooyu mu jël aussi donc euh, day mel ni luy waajal troisième mandat même par rapport ak même euh, keroog bi ñuy def euh, li seen vente de carte au niveau de de leur permanence donc ñu bëri aussi ñu ngi jot na que ni day waaja a présenté wu pour 2024. waaw mais xam nga la politique c'est xam nga président Macky Sall moom moom moom the king la loolu la nga woowee ci politique. en ah, matière de politique mais mais avant loolu sax est-ce est euh, euh, xam ne ils sont d'accord pour que Macky fasse un troisième mandat. troisième kat moo ah su ma jàppee ci lu lu lu Barthélémy Dias wax de président France Bart xam nga Barthélémy Dias expert en politique il est trop fort. c'est mon frère maa ngi nuyu de passage. Mhm. mais su ma jàppee ci lu wax man pare pour jàppale Macky mu def troisième candidature parce que tamit loolu la waxoon. Mhm. nee na président Macky Sall Abdoulaye Wade daf ñu dem dañ koo naxoon ñun xam nga ñun politiciens yi rek ñu dañoo aay waaye président Abdoulaye Wade amoon na droit présenté kon Barthélémy Dias te du Barthélémy Dias du waxantu mhm. Barthélémy Dias du fenn Barthélémy Dias c'est un c'est un c'est am na kon Macky Sall am na droit wax. Ah, donc su ma jàppee ci loolu man pare naa pour jàppale Macky parce que tamit président Macky Sall ba suñ ko ñàkkee la ñu xam kuy moom. donc c'est le président sénégalais de tous les temps. pare nga pour jàppale ko mais depuis un moment gisatuñ sa inve ni nga doon investir woo carrément ci terrain bi lan moo waral loolu. waaw mais xam nga tamit euh, maanaam ja xam nga tamit nit tamit des fois di nga dem ba di nga di nga xaw a tokki xam nga tokki dafa am mais bàyyiwuñu mais dañoo xaw a rek xam nga des fois nga jàpp saako. saako ba si suuf saako ba loxo yu toqi nga xaw wàcc loxo yu tuuti xam nga ñu politique bu ñu def mu ngi sa mu ngi mu ngi tudd la politique mm-hmm. social kii di social di développement mm-hmm. amul benn jeune amul benn bu ñu gën a mérito luy gars yi di am mm-hmm. mais su fekkee aussi dañu jàpp wax dëgg yàlla di di ak suñu propre moyen ah. suñu propre moyen kenn mësuñu jàppale ci politique man président Macky Sall mësuma jox un franc ne ma maa la ko jàppale ci politique barki yonent yàlla Muhammad waaye li ma defal mu ëpp loolu ndaxte kii tax ma doon dara moo ko def dara muy monsieur le ministre Diène Farba Sarr donc sooy def loolu ku si nekk motivation dafa baax gis nga julli yàlla suñu borom xam nga mu du ñu àjjana ba pare tegal ñu safara. Mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. yàlla suñu borom bu ñu waxoon fii safara safara safara kenn du ko jaamu ñëppay dem safara xam nga loolu mm-hmm. yàlla fekk daf ñu tiital rek ne yéen ñëppay dem safara safara safara safara safara kenn du ko jaamu dañ nañ ñëpp dem safara. waaye yàlla daf ñu tegal àjjana. ne boo jaamoo yàlla. boo jaamoo yàlla boo defile ba daan dugal àjjana àjjana boo fa demee 30 ans ngay am wala 20 wala jigéen 20 ans dootoo dee di am ci jigéen ñi urut ay nii fruits yi ngay lekk nangam nangam di nga dëkk ak yonent yàlla Muhammad loolu yëpp nga dégg ko mu neex sa xol bi. Mhm. moo tax ngay motivation la pour nga gën a mën dem àjjana. Mhm. mu des fois mu jox la ay turu yàlla ne lii boo ko defee di nga am lii lii boo ko defee motivation la. Mhm. mais su fekkee aussi da nga nekk ci langue politique bi amoo benn motivation. nga nekk ak nga nekk ak ay militants du yow ay militants yoo xam ne. franchement euh, c'est des gens ñun on a une base affective et saine. base bu ñu am du base bu xaalis. du base boo xam ne dañ lay dox dara une base affective dañ la bëgg dañ la dañ la dañ la fan dañ la sopp dañ la def lépp ñooñu bu jaral la nga jaral leen seen bakkan. su fekkee li ngay def chaque jour ko def ñu ko seen leader apporte dara li li muy sonn yëpp amul dara loo xam ne. àndut ak motivation. ànd àndul ak motivation. mais motivation comme lan ban genre motivation. dara motivation rek xam nga tey. xam nga tey motivation bari na damay bañ ñoo ñu foone sax ay poste de responsabilité laay wax mhm. loolu te man mhm. euh, dëgg yàlla maa ñu ngi sant yàlla motivation bari na xam nga tey jërëjëf sa motivation la mhm. jërëjëf ah Ousmane wuu jërëjëf sa motivation la ah, damay wax rek loolu day tax euh, dëgg yàlla ñi ñi gën a amaat envie ñi di la jàppale gis nga son excellence monsieur président Macky Sall euh, billaahi wallaahi taalaahi président Macky Sall est mal entouré

ay ay kii moo dem ak man maanaam am na ñoo xam ne sax ñu ngi ci kanam président Macky Sall kenn gisuleen ñooy fal seen mbir di di présenter seen mbir yaa ngi dégg di di di investir seen seen seen nit. Mhm. ndax ñoo ñu bu ñu amee dara ñoom ñu am dara ñu ñu nekk ci àll bi nag suba ngoon guddi bëccëg di liggéey kenn faale wu ñu. Mhm. kon kooku bëggoo président su fekkee ma dama dem Kaolack ah je suis aimé par les Kaolackois yaa ngi dégg tout la jeunesse kaolackoise est derrière moi et derrière le ministre Diène Farba Sarr ñu man nga jël ma éliminer ma. yow ñu ànd ak man dinañ la bëgg. waaw c'est vrai que si loolu aussi si élection locale yi boof c'est vrai que ñu bëri ñu ngi doon bëgg nga présenté wu ba si yow sax euh, je pense que bien que fësaloon nga sa volonté bon bu bëggoon nekk maire. bon ils ont ñu keneen aussi. donc euh, c'est vrai aussi boobu mu andi woon na fi frustration. boof euh, locale yi aussi ñëw ñu gis ni investir su investir woo ci carrément comme ni nga ci waroon investir woo. Mm-hmm. donc ñu bëri aussi boof ñu ngi naan sax si locale yi sëñ bu su gagné tey jii sa loxo ak loxo jën farba mu ngi si suuf. waaw ah, xam nga xam nga mu la loolu ñoom waxoon nañ ma tuubal nañ ma ko. Mhm. ñu tuubal ne élection locale yi man maa côté ma dama dama dem dama dem kii rek quoi dama dama def semblant. Mhm. waaye maanaam man dama def boy vote euh, dama. boycott vote sanction vote sanction laa def. Mhm. vote sanction bi ma def. moo tax Serigne Mboup gagné local yi kon ça veut dire kon ça veut tout dire kon ça veut dire Kaolack maa ko moom kon que président Macky li muy investir keneen su fekkee man am naa pouvoir toog su ma defee vote sanction. moom mu ki ki nga teg mu perte. Mhm. kon ki nga teg amul doole kon kay nga teg ko am doole. Mhm. xam nga man ñëwoon naa fii Sénégal seen kër gi mhm. wax na la la Kaolack caabi ji mooy Ousmane Nawel te caabi ji kenn moo ko mu muy Diène Farba Sarr gis nañ koo liggéey pendant sept ñu liggéey Kaolack gis nga Kaolack fekk Diène ba Sarr la delluwu fa. Kaolack fekk Diène Farba Sarr téewul mbir mi Kaolack Macky Sall du ko gagné barke alxuraan. Ah. dama ko plusieurs fois xam tax ñun on a une base affective li ñu am. dafa am doole ñii muy investir Kaolack nii ñëpp Kaolack waaye faalewuñu leen gisuñu leen alal la nga gis da ngay ñëw indi sa alal ay 3 milliards 4 milliards. Mm-hmm. jox ay sëriñ 10 millions. jox ay nangam ay jox ay ana ana ana mbootaayu Adja Fatou Sow am 5 millions ana mbootaayu Adja Fatou Kane am 3 millions loolu du politique la politique c'est au fin fond les Kaolack waa xam nga nit ñi ñu sonn ñi dem c'est la base la politique yaa ngi dégg. dugg ci gars yi ja jaaykatu gerte caaf yi mécanicien yi menuisier yi si leen mbokk mais su fekkee danga dem mer euh, ku ci benn si kër sëriñ joxe fa 10 millions wala nga dem beneen kër sëriñ joxe fa 15 millions waaye sëriñ bi jël dugal ci poche am yow sëriñ bi mu fi ñu doon benn sëriñ wooteetul militant benn sëriñ wooteetul militant. kon loolu erreur erreur njiitu réew mi la. Mhm. yow njiitu réew mi yow le président c'est l'homme le plus informé. Mhm. yow nga gis ne kii ñu ñëw fi am doole waaye pour affaire lobbying. lobbying lobbying lobbying lobbying la ba nga jël ñeneen ñoo xam ne teg fa waa Kaolack nga perte Kaolack. mais ci loolu sax déggoo nañu aussi am na juste avant bi campagne bi démarré locale yi donc xawoon nga téye sa loxo ba à quelques jours si la le président recevoir donc ba ngeen waxtaan boof lan moo ruusoon ci waxtaan jooju aussi. non recevoir wu ma xam nga dañuy wax rek président daf ma ah ah. oo. franchement recevoir wu ma mais daf ma oo téléphone. Mhm. non loolu action législative la. parce que locale yi ba ñu ñëwee. Mhm. Mhm. locale ñu ñëwee ñu man tamit ah ma ne kon président man soxlawu ma. dama ne ma li ma def yëpp li ñu def yëpp ñuy élection locale yi ñun président Macky Sall mënoon nañu wax ne ne serait-ce que sax par respect mu oo Diène Farba oo ma man. Mhm. ne ma Ousmane franchement ñu ngi dem local dem na ngeen jàpp ci. Mhm. mais au téléphone soo defoo ñu ko pour dem nañ ñu dem Kaolack. Mhm. bañ demee Kaolack ah ñu gañe leen parce que ñun tamit mu mënuñ force ñi ne la voté leen. parce que ñun dañoo bëgg. yaa ngi dégg nga def erreur de choix nga ñu répété waat la même chose ci élection législative yi. kan moo ma gën a mérité man Kaolack ñu investir ma ne man ma nekk député kan moo ma gën a kan moo gën a mérité loolu man si un jeune boo xam ne depuis mi ngi lay liggéeyal def social jàppal doomu aadama yi Kaolack ñëpp bëgg la ñëpp ñëpp ñëpp bëgg la xale yi tout tànk yi kenn moom ma gën a mérité man nekk assemblée national amul mais si ndogalu yàlla aussi nga def ne invité def nga say sa liste député Kaolack fal nga ñu la neex grawul une ñu topp la ci parce que yaa suñu chef yaa suñu njiit ñu ànd seeg yow mm-hmm. ma ne kon président peut-être ñun ñoo ko safut. wala xëy na aussi amoon na benn leen lu lu mu leen bëggaloon peut-être poste. waaw on sait jamais ma dama dama man man sama xel laa wa man li may wax lu am. Mhm. dama jàpp ne élection législative yii man duma ci participer. Mhm. parce que kat nit ki ngay sonal di sonn di sonn gisul li nga sonal te à chaque buñ buñ gañee ñu wax ñeneen moo gañee bii paa naa téye sama loxo ba xam ne ñun ku gañee élection locale yi dama lay wax ne non 100 mois 100 jën fa on gañ pas Kaolack. Mhm. sans moi sans Jennifer Bassar ci ndigalu yàlla ci ci ndogalu yàlla on gagne jamais Kaolack. mais le fekk aussi ñu bañ a nominer bon ñu bañ a jël euh, Jennifer Bassar ci gouvernement bu bees bi ba frustré wu leen aussi. wala ak waaw mais xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga président président xam nga tey euh, léegi ànd ak neex na waaye am na yoo xam ne yàqal yàqal président Macky Sall xam nga tey jii booy dem di lobbying wala di jéem a xañ ba Bassar yenn affaires yi. wala Diène Farba Sall bu koy écarte ci gouvernement wu Macky Sall yow yàq président Macky Sall utal ko xas la parce que ku ne xam ne sa c'est Diène ba ku ne xam ne far ba lam def APR ñoom ñu nekk fii yëpp nekk ay ministre rek nekk ay député bu Diène taxawee ñoom ñu taxaw ñu xam ne ñoom lu ñu liggéey yëpp kii la ñu waroon jox alaat ba ndax bu APR taxawee c'est grâce à lui mhm. far ba ci jaayee kër Diène Farba ci bind livre un combat pour la république depuis 2011 na ko di nga nekk président Diène Farba ci dawal oto bu xant daw Kaolack créer parti bi oo ñëpp di sonn far ba ci diaspora Diène Farba ci SMS ah soutien à Macky Sall moo créé woon SMS Diène Farba primature Diène Farba partout ci président Macky Sall kon tey boo ko écarté yóbbu ko ci àll ba mu toog loolu utal xas Macky Sall la parce que nit dina ne xanaa Macky Sall moom fàttiwul fa dafa fàttali ko Diène Farba defal lépp. bien vrai que des fois nga wax nit nit naan la pourtant président joxoon na ko urbanisme joxoon na ko investi mën na ko yow yaa ñàkk ngor jën Diène Farba yow tey ji yaa ngi dund ci nguur gi loo xam ne bay Diène Farba di ànd ak président Macky Sall maanaam boobu yow est-ce que ku xalaatoon ne Macky Sall dina nekk président Macky dina dina doon président Diène Farba ànd ak moom songu euh, maanaam soobu ci jàppale ko sur tous les plans kooku mérité na xoolal dafa mérité. toog ci ministère ba nguur gi di jeex loolu la mérité dafa mérité fu fu Macky Sall nag te sooli génn yaram kala mu naan joxoon naa ko nangam déedéet joxoon naa ko nangam def ko mérité toog ak moom parce que lu mu créé la APR c'est son bébé lu mu créé la mais kon nag bu amee li ñu dañ ñun tamit ku gëm yàlla lañu Diène Farba ni ku gëm yàlla la ku bëgg président Macky Sall loo wax ne mënoo garaawul ñun nañu ànd ak yàlla rek comme suñ mbakkee na koy fekkee nañu ànd ak yàlla injustice injustice yàlla bugg ko koy def gis nañ ko xeex bi gis nañ ko lubin bi gis nañ lépp waaye nag tawakkaltu alallahi la hawla wala quwwata illa billah ñu ngi làqatu ci ginnaaw yàlla di ci làq jiyéen nag soo gisee élection lu ma ma ñëwaat revenu tuuti ci élection législative yi nga ne président dafa recevoir recevoir dafa ma oo ba ma ooyee def na ma Ousmane gisuguñu la de mhm. gisuguñu la la nga wax Kaolack yënguwul mhm. kon ça veut dire que président est informé mhm. kon ça veut dire que président il ma man maa man maa tax ba ma jógee campagne dama ne ko président comme te woo ma. Mhm. est-ce que kon kooku soxla poste de responsabilité. dama ne ko président comme te woo ma. lii rek laa bëggoon man ku ma yëg rek laa bëgg. Mhm. comme te woo nga ma d'ici deux jours ma defal meeting boo xam ne mosoo gis. Mhm. benn fan. ku la au nga def meeting boo xam ne feesal stade. plus de kenn xamul ñaat fu ñu ñu dem jugee. te si par par par téléphone. oote téléphone par téléphone rek di oote wala di di message. ñëw leen maa ngi fii ñëw leen Ousmane ne dama am meeting dama am meeting. Mhm. loolu kenn mësu koo gis si àdduna. Mhm. loolu base moo koy def loolu une base effective moo koy def donc indi leen ñëpp ba pare non seulement boole ci euh, indi indi créer carte d'identité yi créer lépp gars yi voté ba pare gagné élection législative te pertoon élection locale yi. Mhm. te bii pas Ousmane Noël daf ci sóobu Ousmane Noël dafa bokk ñu gagné kon nga xam ne kon kooku kooku am na doole biir Kaolack kon kooku su fekkee ñu dañoo am biir doole biir Kaolack te amul ñu fulla militants yi ànd ñun aussi. dañuy frustré mer. loolu rek loolu rek la. mais su fekkee da nga jël say nit aussi ñun ñooy sonn ba bëgg dee à chaque fois bu gâteau bi ñëwee ñooy lekk gâteau ñun ñu lekk mbaxal ah mais loolu tamit neexul. donc même soo seetloo aussi suñu nee Diène Farba tout le temps ñu ngi naan Ousmane Noël parce que gis nañ li ngay def ci peut par rapport ak. li euh, koy liggéeyal aussi. donc mais aussi dernièrement on a vu nga def benn sortie donc euh, di expliquer que ni su nekkee saaga Sonko moom mooy tax aussi nga am poste de responsabilité donc euh, yow doo ko mës a am en fait donc est-ce que loolu aussi bokkul ci li la li gën a tax aussi ba amoo comme ni nga ko waxee yenn poste de responsabilité yi wala yooyu. si si si c'était à répéter je vais répéter la même chose. su fekkee loolu moo tax duñ ma fal kenn du ma fal dama ne su fekkee ma toog ci émission saaga Ousmane Sonko wala sosal Ousmane Sonko wala wax lu ñaaw Ousmane Sonko mooy tax ñu fal ma barki na Mohamed kenn du ma fal ndax duma ko def ndax internet tudd internet éternel la tudd président Macky Sall dafay jeex. Mhm. yàlla rek a dul jeex. Mhm. je suis avec le président Macky Sall. Mhm. je suis avec lui et je toujours avec lui man je préfère wax bilan wu Macky Sall. li mu fi def li mu fi def kenn su ko def je préfère insister wax dëgg yàlla ci sociale bi may def ah bu jugee ci président Macky Sall di ko defal jaamu yàlla yi ñu ne yow foo bokk ma leen ci APR fuy APR mooy Macky Sall moo ko jiite. kuy kuy Macky Sall c'est le président de la du Sénégal. yéen man ne gii la am ci yéen. ma doon lantinoor lan ma jox laa leen jox nii. je préfère bilan am couverture maladie universelle yi lu ne social bi muy def infrastructure bi. route les autoroutes terre bi lu ne président Macky Sall bilan boobu noonu di ko wax ba ñi di ko xam ah di ko wax ba ñu ñi di ko xam moom a gën a ma toog di saaga Ousmane Sonko wala di ŋaññi Ousmane Sonko wala di ko sosol parce que Ousmane Sonko ci logique am la nekk Ousmane Sonko c'est un opposant Ousmane Sonko dafa fekk koo xam ne benn garab boo xam ne ñu ci kaw. garab bi ñu takkal ko ñu takkal ko chaîne or. Mhm. yaa ngi dégg jox ko tàngalu tàngalu jamaa mu téye ko Ousmane Sonko nga nekk suuf yor fetelam. la mu bëgg mooy ajji garab googu ka ne ci kaw garab ba ka ne ci kaw garab ba président i Sall président Macky Sall logique am moom mooy lan muy fexe ba askan bi kontaan ci moom bañ a déglu Ousmane Sonko man aw ma wax ci Ousmane Sonko parce man man pour man Ousmane Sonko bu ibboon xolam ba bañul Macky Sall man pour man lu mu bëgg mooy siège Macky Sall mais bañul Macky Sall c'est un opposant opposant la leen donc lu mu jot ci mbalit dina ko xëpp Macky Sall lu mu jot ci lu salté mais nekkul ci Macky Sall nekkul ci Macky Sall kon ñun ñii comme te ñoom la jaral ñoom ba mu yàqu ñun ñu nekk Macky Sall nañu jaral ba mu baax di wax lu baaxu Macky Sall moo gën ñu attardé wu di ñàkk suñu bopp fayda nan na Ousmane Sonko yow Adji Sarr yow violeur pour lan loolu du ma wax lu ñaaw man kenn mosul dégg ma ne Ousmane Sonko violeur du ma ko wax barki yontu yàlla Muhammad rus naa loolu la maanaam ñaaw na ma di ma di ko wax waaye te ñoom ñaaw na ci ñuy wax lu leen ni tudd président Macky Sall président de la République nga nga gardien de la nga toog ba si yàgg nanga ko ay sàccet ay Macky Sall sàcc la ak ay Macky Sall dictateur ak c'est trop vilain. Mm-hmm. yaa ngi yaa ngi xeeblu sa réew. président Macky Sall moo seen président c'est président c'est président de tous les Sénégalais waaye bu dee loolu rek la. parce que dafa mel jamono ji aussi toll nañ fenn foo xam ne aussi donc soo amul loo wax Sonko rek dafa mel ni mujj gi yow. Euh, ci xam nga dama dama dajeeg dama dajeeg professeur euh, le gars là ki euh, kuy nekk nu mu tudd TFM professeur kii nu mu tudd waay professeur bi te mu te mu mën a wax rek macha allah. am borom kàddu yu rafet yi. Samba ah, Mas ah. Masamba. ma ma professeur Masamba wala. Masamba. professeur Masamba sama xarit. dañoo dajee. mu ne Ousmane Noël wax ba yàq nit amut wax ba yàqoo am. wax ba yàq nit amut. wax ba yàqu rek am ma ma jox la exemple ana ñu wax waxkat yu wax yu ñaaw yëpp ci réseaux sociaux yi koo ci mos gis moom am teraanga di nga wax ba dugg kaso di nga wax ba am cardiaque wala am cancer dee di nga wax ba am ñàkk ci crédibilité te boobu su ma gën nga ba wàcc boo waxee parce que am na yaram yoo xam ne yàlla leen tooke suñu xalil am na ñoo xam ne am na jaamu yàlla yoo xam ne yàlla dafa tooke seen yaram bi boo waxee li nga wax si ñoom tuumaal leen wax lu salte ci moom jël tifli bi wanaasu ko tifli bi lay def cancer. mun ngaa fa jaaree faatu waaye mun nga wax diffamation ñu porte la nga dugg kaso kon ngay wax ba yàqu am waaye bu bu ci gën a bon yooyu yëpp garaawul bu ci gën a bon nga wax yóbbu la vaar mooy nga ñàkk sa crédibilité yaa waxoon lii comme lu dal waa ji keroog wax wax wax wax wax wax wax nekk tey li ngay wax yëpp gëmoo ko yaa ngi wax ay SMS si suuf di yàq di yàq di yàq waa ki ngay nekkal. Mhm. donc des fois sama Ousmane Sonko dama koy yërëm moom mi ngi dëggu te peut-être des fois entourage am gars yi di ko wax loo xam ne amul amul benn njariñ. donc loolu mooy wax ba yàq nit amul wax ba yàqu rek am soo gis waxkat lu bon ba am mu am jàmm soo gis ki nekk di topp nit di asserné wu di wax lu ñaaw ba am jàmm mu soo gis fu wax defaree dëkk mu soo gis fu wax fajee xiif wax lu ñaaw surtout wax lu ñaaw mhm. donc ok donc amul euh, njëriñ bon mu ñu xaw a xoj tuuti donc mm. fait avant ñuy bi donc bëggoon naa nga ñëwaat tuuti si par rapport ak euh, les travaux au niveau du pôle urbain Diamniadio euh, ñu un peu aussi comment ça avance xam nga ñun ba ñu ñëwee ñaajo dëgg yàlla dañoo lu ñu fa fekkoon mooy ay barboos ak janax ak ay xaj ak avec des hautes herbes xam nga rek ak xarañte xarañte liggéeyu xarañte monsieur le ministre Diène Farba Sall ngeen fu mu jaar rek def na fa dara ay ay ñax yu gudd lañ fa fekkoon ay xe dara avancé wul ay benn immeuble ak ñaari immeuble du dañu DGPU kenn mësu koo xam la DGPU kenn mësu koo dégg projet Macky Sall bi nga xam ne Macky Sall ko fonk président son excellence euh, euh, son excellence monsieur le président dafa fonk projet bi parce que Diamniadio c'est une nouvelle ville mooy doon comme la défense de Paris doon comme ay New York City mu rafet mu doon ay idée de franchement dugg ci Dakar stade bi nekk fa boo dugg ci Dakar nga gis jam ñaajo mel bi da dañ une nouvelle ville immeuble yi jóg kaw loolu la ci mbébét loolu ci am xool may kon bu ñëwee ñun ñun fekkuñ fa dara léegi boo duggee jam ñaajo di nga xam ne jam ñaajo yaa quelque chose di nga xam ne jam ñaajo bii malgré ak contrainte yi corona ñun dañoo ñëw rek corona am ñu ngi ñëw 2020 mhm. presque en fin 2019 2020 mhm. lañ dugg si 2020 defaguñ 6 mois corona xoj ñëw mhm. ba mu ñëwee lu njëkk def mooy liggéeykat yi fa nekk mettre leen dans les très bonnes conditions monsieur le ministre. léegi kat ci ci ci site laay waxee te ku ne xam ne Sénégal moo meilleur site. site laay waxee. ba ma ñëwee dafa fa fekk dafa fekk ay liggéeykat yu fa nekk mu mettre leen dans les très bonnes conditions indi leen ci dëkk bi. ba mu lay indee ci dëkk bi ba pare yokk seen salaire yi. ne leen kuy liggéey xelam dafa war a dal. uti leen ay daamaar ñi yenn ñi yenn ñi du ñëpp nag yaa ngi dégg yokk seen salaire bu baax a baax. mettre leen dans les très bonnes conditions utu leen ay bureau yu baax ne parce que président Macky Sall projet bii daf ko soxal comme ne projet da ko soxal nag te kuy liggéey rek da nga war a nekk ci dans les très bonnes loolu njëkk a def ba ñëpp naan alhamdulilah rabbil alamin tey nag boo demee nag mun nga gis ñu frustré ndax àdduna moom àdduna moom euh, comme te yontu yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam moo dajalu ñëpp ci bànneex waxuma nag jéen Farba Sarr

faut les moyens du travaux yi eh, maanaam dem dem Mbadakhoune wala dem ko fee rek ñaaxaar eh, eh, wala dugg fii jëppara tabax sa benn R plus 1 wala wala dem ngiij ngi te tabax benn benn benn néeg du loolu de jëm ñaajo suuf dafa doy waar ay milliards mu def fondement bi ay milliards mhm. yaa ngi dégg soo fekkee nit fi ko jël liggéey ko jëm deux ans jëm trois ans nga dafa yéex kon xamalu xew mhm. même aux États-Unis noonu la dañ gis ay immeuble boo xam day jël ay années mhm. et donc le plus important mooy gars ngi def gars yi ci kawam yaa ngi dégg sénégalais yaa ngi si gis seen bopp yaa ngi dégg manœuvre yaa ngi fa di liggéey di am xaalis c'est plus important ñu ngi ñu ngi créer emploi jam ñaajoo ngi créer emploi parce que ñëpp a ngi fee dem di xëy di créer di am xaalis soo demee ci administration bi ñi ñi ñu war a yokk seen salaire yokk nañ seen salaire ñu war a am dara am nañ dara ñuy liggéey ñoom kon lu lu le plus important mooy nañ apporter dara des gën liggéey gën a jëm kanam mais franchement ça avance li tra ñu jéem Farba Sarr c'est def na fa dara ñu si bu rafet bi def jëm mhm. ñaajo ça avance ok donc duñu jeexal aussi te ñëwuñu un peu pour une dernière question par rapport ak nemmeeku tour bu Ousmane Sonko ñu bëri aussi observateurs yu bëri ñu ngi expliquer que ni selon eux donc euh, looloo tax euh, dé bon nguur gi dafa xaw a ragal tuuti parce que par rapport ak euh, nemmeeku tour bi mu commencé ba léegi donc si la ñu ubbee accélérer aussi audition Ousmane Sonko bi donc pour mën ko bloquer par rapport ak yooyu ban. waaw man franchement man je d'accord avec ak nemmeeku tuuram nañ ko bàyyi mu def nemmeeku tuuram ñun wóolu nañ suñu bopp ñun nañ liggéey président Macky Sall defoon na ko y avait des temps président Macky génnoon na lu tax mu gañ réew mi. dem au fin fond du Sénégal. bi di euh, wër ba gars nekkee fii ay place de l'indépendance moom ñu dem wër fu ne di wër gars di dugg ci ay néegi ñax. di wër gars kon nañ bàyyi Ousmane Sonko mu def neme kuuram pour lan loolu ko su ko am base doo tiit. ku am base politique doo tiit nañ ko bàyyi mu def neme ku tuuram man de na ko def neme ku tuuram cent bu ñëwee Kaolack am naa sama base du fa dugg. sama base kenn mënu koo jël. parce que wóolu naa sama bopp Ousmane président dina bàyyi Ousmane Sonko bu def demee kuréel bu fekkee du ma wax sa président Macky parce que peut-être moom yoonam neew ci loolu parce que justice def ay liggéey parce que du moom mais nag euh, c'est un gentleman mi ngi liggéey nemmeeku na bugg na nemmeeku ay militant am na nga ko bàyyi mu dem nemmeeku ay militant yow soo amee base ku nekk am nga fi nga dëkk kañ boo amee base su fekkee yow am nga base yaa ngi ci Macky Sall di ñu amul base rek ñooy wax ñu amul base politique ñooy ibbi seen gémmiñ gi que du sonal nit ñi kon nañ ko bàyyi mu def nemmeeku tuuram am na droit dem nemmeeku ay militant am na droit il a plein droit léegi man mi am base lew na mhm. Ousmane Sonko du fa am nit mhm. man mi am base Kaolack Ousmane Sonko du am nit samay Mérina du am nit euh, euh, boo demee Ndorong du fa am nit boo fenn du fa naa sama base affective téye naa leen ñeneen ñi bu ñu nag Ousmane Sonko du fa am nit mais bu fekkee amuñ base Ousmane Sonko day ravager lépp kon donc buñ nax président Macky Sall président Macky Sall moo war a yeewu xool ñi am base mu liggéey loolu leen te ñu bàyyi Ousmane Sonko mu def ne ma ko tuuram. il a il a plein droit. ñu fàttali que euh, Ousmane Noël Dieng moo nekkoon suñu invité muy responsable politique APR à Kaolack nekk euh, aussi chef de cabinet au niveau de la DGPU bu Diène Farba Sarr ñu bàyyi la nga tàggatoo monsieur Dieng. waaw Khalil maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant di sant franchement monsieur le ministre Euh, nga xam ne ba may ñëw fii tàggu daa ko di doon nit ku baax di doon nit ku nit ku nit ku humble un intellectuel un technocrate dëgg yàlla maa ngi koy ziar di ko ñaanal yàlla jàmm gudd fan ak wér euh, donc di di leen gërëm di gërëm yow Khalil franchement nga doon journaliste bu baax bu kale li may wax rek ne euh, ñi dem baax ñi ngi baax ba tey métier journalisme nag dafa am ñu ko rax fi mu toll nii moo tax lépp gi yàqu di wax rek di di di di di conseiller di gën a di gën a dellu sama mbokk jeunesse bi ne nañu arrêté parce que fi mu toll nii Sénégal kenn kenn wóolatul kenn papa wóolatul doom ah doom wóolatul papa jabar wóolatul jëkkër ah franchement euh, kenn wóolatul kenn yàqu na te loolu waroon na gën a neex Sénégal waroon a gën a neex léegi da oo nit après téléphone sax di tiit ah ojo nga nit sax gaaw effacé ojo bi di tiit di nga lépp di nga kenn wóolatul kenn fi mu toll nii ñëpp a ngi espionné ñëpp ngi def lu soxor bu ñu foog ne Macky Sall Macky Sall moo indi jafe-jafe mi mais xol yu àndul yu ñuy def yu salte yi wéerante gi defante lu bon yi moo tax Sénégal mënut a jëm loolu Macky waxuma Macky Sall boo indoo Macky Sall indi Poutine indi indi indi indi indi Barack Obama indi keneen ak keneen keneen keneen les meilleurs présidents du du monde du tax Sénégal avancé. Mhm. parce que def lu bon baaxul wax lu bon baaxul wéerante si lu bon baaxul jeunesse la jeunesse c'est la puissance. Mhm. doole la fi nga nekkee si digg doole fa nga war a utee liggéey. ut loo war a franchement dimbale sa njaboot bu la ko état joxul mën a euh, kii yaa ngi fi euh, kii ñu tudd euh, nga dem di menebru mm-hmm. ah dem liggéey dem dans colobar a ngi fi bu la mun nit mun na am diplôme ñaa ñu am diplôme ñëpp mënuñ liggéey adduna loolu la ñii dañuy dee ñii liggéey ñii duñu liggéey at yàlla moo defee noonu addunam kon yow bu leer ne affaire bi ñëwagul bul tëdd xaar midi bul tëdd salal ba midi góor du tëdd ba midi góor du tëdd ba une heure góor du du toog ba 4 heures du matin 5 du matin nelaw ba 13 heures 14 heures naan ka fa waa mère mère jox na ma kayam nga naan après toog ci biti bu la kenn rombee oto bi nga saaw ko tey day indi jalousie day indi xol bu bon. le fait que boo duggee 8 heures nag 9 heures dem si chantier yi boo demee si chantier journée 2500 la 3000 bul am complexe bi life goes on man life goes on bul am complexe boobu noonu nga dem si chantier yi liggéey am journée 2500 def sa poche euh, mois bi 60 et quelques mille la nañu wax moo am soixante quelques mille la di nga am la def sa poche loolu ngay def ba yàlla fekk la fa. moo gën toog ci ay réseaux sociaux di saaga ndey réseaux sociaux naan kaa bi man fii Sénégal laa gis ay góor yu toog naan kaa kaa naan kaa bi xale loolu lañ ci wax maanaam ibi di live dangay dem man day man tukki naa ci bitim réew. tukki naa fu ne mais li ma gis. dama def ma bégloo ba yéene naa ko sama sama jeune su réew da nga gis ay jeune entrepreneur ñu def leen live ñu ñu def live naan nan entreprise bi nii li lañ ko mën doxalee li nanga nang di wax loo xam ne c'est important mais Sénégal ngay gis wala nga gis ay jeune tailleur wala nga gis ay jeune nangam walla Sénégal ngay gis ay jeune ay punkal ay muskalaf taxaw naan ay ah, yow kaa yow yow kaa loo ci wax yow ah diw de nangam ay kaa bi nga doon gentleman doon góor yàlla yor sikkim doon guerrier toog sa lal nii ah, di maj see juñ naan kaa non kaaban loolu si honteux si jeunesse. Uh-huh. ab waroo am jot you don't have time. yaa uh-huh. yu amoo jot demal nga liggéey. demal nga liggéey su la ko Macky Sall joxit nga daan sa doole. Mm. jaay parfum jaay caleçon jaay dàll ñafe yàlla moo la fay fekk barki Seydina Mohamed. te mm-hmm. dina mës a baax incha allah. kon nañ bàyyi saaga ci internet internet tuddul internet. internet la tudd nañ bàyyi saaga yi nañ bàyyi wax lu ñaaw yi nañ bàyyi wax lu bon yi bu am temps bu ñu am temps le temps passe te dee mi ngi ñëw. dee mi ngi ñëw te yàlla waxuñu boo amee cinquante ans soixante ans quatre vingt ngay dee. Mhm. yàlla yoon neew ci dàngam heure bu la neex ba na la rey. Mhm. nañ bàyyi xel ci loolu gars yi. Mhm. maa ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal di gërëm ñi staff bi ma àndal ku ci mel ne sama cellule euh, waa cellule cellule de com euh, nga xam ne la la présidente est là muy euh, muy Soda Diakhoumpa di fait franchement elle est en train de faire un excellent travail. di nuyu sama protocole général monsieur Thierry Touré di nuyu aussi sama chauffeur sama rakk sama lépp di Pape Faye borom Ngij. du nuyu suma garde corps ah élément euh, Ablaye Mansar sama benn cellule com bi nga xam ne franchement digital nga xam ne moom tamit il est trop fort sa xarit la sa sa tourneur xalil. Mm-hmm. booy bu ay booy bu saf. donc du nuyu ñëpp ñëpp maa ngi la ñuy bëgg di nuyu waa MJK DFDS le grand mouvement MJK nga xam ne si le meilleur mouvement fi ñu toll nii nekk ci Sénégal bu gën a puissant nuyu ñëpp su ma nuyu mouvement MJK nuyu naa mouvement affilié yëpp su mel ni ay majon newelist yi ànd ëtt ëtt yàppoo leen ànd booloo jàppale ànd ànd yi daal nañ. franchement nuyu naa ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn ku ma lim ku lu ne da juum. wax dëgg yàlla maa ngi gën di gërëm Sénégal di gërëm sama caméraman yi wax dëgg yàlla. Baydi ah, na yàlla guddal fan ah. Baydi Baydi Mister Baydi ah le le meilleur caméraman de tout <laughs> de tous les temps. franchement je suis très content euh, di wax ne euh, dinañ ñëwaat ci kër gi pour leen. pour pour yeneen mbir incha allah. ñu ngi lay jaajëfal bu baax jaajëf jaajëf xalil merci yaa ngi nelaw rek suba léegi.